dégloo sa télé da ñuy dégloo si téléphone bi comme ça ñëpp mën a mën a mën a ci wàññi tuuti bu fekkee yaa ngi ñu ñu maa ngi lay fay soxna bisu bu ñu dégloo ak sa télé da ngay wàññi télé bi ñaa nag yow tamit am nga expérience bi wàññi télé bi ah, soxna Pise wàññi naa télé bi fay naa. Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, euh, fii ci ci bi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur bu 2STV. salaamaaleykum salaamaaleykum soxna Bisou maa ngi lay siyaar di siyaar téléspectateur yu 2STV di siyaar di siyaar waa monde ma nekk muy États-Unis particulièrement maa ngi nii nekk ci kër Malick Naar Seydi Amina Poté di seetaan nii émission bi nii sax tey ma sama hôtel nii ñëpp yi laay seetaan si émission bi. di nuyu mes amis loolu de Sénégal di nuyu Faramare yi ak képp kuy bëggee Wally Ballago Seck. Euh, tey ñu ñu ñu fekk la Sénégal ñu nekk di waxtaanee li nga xamante ne moom mooy métier influenceur ak photographe kenn xàmmeetul kenn kenn xàmmeetul kan mooy kan euh, euh, tey ñaa nga bokk ci snapper bi nga xamante ne xàll nga xàll nga quoi qu'on puisse dire ñaa xàll na ba heure bi ñu gis particularité bi nga xamante ne gis nañ ay. yeneen style ñeneen di def ñeneen ak ñeneen ak ñeneen euh, tey yan kàddu ngay sànni ci li nga xamante ne moom mooy métier bi ngeen nekk. ah soxna bisu na balaa dara di xew ma nuyu sama xarit yooyu toppoo sama grand ñu naan ko Amar Khary le grand photographe. di nuyu tamit suma frère suma doomu ndey suma jumeau sama ñaari jumeau yooyu ñu naan Cheikh Senghor ak euh, Metsop ak Metsop international. Mm-hmm. waaw. tey lan nga mën a wax ci seen métier bi nga xamante ne moom mooy métier influenceur. métier bi métier bi daal moom li ma lay li ma lay njëkkoon a métier bi moom mooy dama ko fàtte sécuriser moom. da nga ko. dama ko fàtte sécuriser métier bi. <laughs> ah juum ko de. da nga ko fàtte sécuriser ci naka. dafa amatul kubéer wala jóg ne influenceur nga te am na ñoo xam ne mënuñu ko influencer eh, seen waa kër. dañoo may influenceur di réclame influenceur lañu man loolu ma gën a métti moo influenceur moo tax man fi mu li ma gën a bañ sax ku ma woo influenceur laa gën a bañ sax eh, bi. bëgguma la ñu may wax ndax affaire bi xamatoo kenn i bisu ku jóg ne ku jóg ne influenceur la ñoo xam ne yow bisu yoo xam ne ñi amuñ sax dix vues wala vingt vues ñu ne lañ man comprendre duma ko waa métier bi mais influenceur da ngay osé di di ay marché di am ay convention di di gagné des dizaines de dizaines de millions wala ngay wala nga décroché di dem euh, couvrir du ay mel ni ay euh, salon de l'immobilier bi ma demoon dernièrement ak euh, ak Amar Khari

non doo comprendre quoi. sa doom day noonu lay def de. Maître Shop dem ji. non Maître Shop day innové mais Maître Shop fi muy dem am na xam ne fi muy dem foofu xale du fa dem mais Maître Shop bii ay millions ay millions koy jëndee. Eh, mais ñi nekk Dakar doon ay influence mi ngi créé contenu day créé contenu di créé ay wax mais fi mu ne nii ko koo di dégg Sénégal mu naan indi la. je king of di ko dagg foofu loolu benn touche bu Maître Shop indi la. gis nga benn touche mais tey téléphone rek da ci xew yeeg daayira yi wala tudd famille wala ci mbootaay wala ci NTM yeeg yooyu noonu influence la bëgg a yàq suñu métier bi te ñun li ñu yor ni métier noble la. bisu bi sama quatre passeport en trois heures de musique ma jeexal quatre passeport ñu naan ñii dañuy foo ñun foowuñu on voyage en business class on dort dans les hôtels cinq étoiles di ànd président la République di qui mënoo xëy le gouvernement mënoo xëy waa Palais envoyé la message ne mise en place heure nangam euh, convocation heure nangam déplacement du président heure nangam loolu ku ñu ko defal c'est à saluer loolu yëfu caaxaan. Mhm. xam nga ñun li ñu ni fooy ko li métier la fooy ko du caaxaane wuñ ko fii may wax ak yow nii euh, Paris laa jógee woon doon couvrir événement wu euh, l'événement de Sidi Mhm. on dem nañ man la jolie def commune def avant première communication bi dégg nga dem ci sa bi ñu tijjil ñu saal bi ñu def avant première ñu koy ñu koy ñaanal jàmm le vingt neuf juin incha allah yàlla may ko ndam. mais tey li nga xamante ne moom mooy moom mooy seen métier bi ngeen nekk ngeen gis nga nga bokk ci ñi ko ñi ko xàll. soo ko xam ah, nga yow maa ngi ba ñuy taxaw brise nga ma ñaar téléphone moo gën a jege télécommande loolu loolu yii xewagul woon sax. Mhm. yow tey métier bi tey fu ma ci yegg rek dama la ci war a gërëm ñu ko doon sama manager mhm. ba ñuy dem tourné waat rek nga ne doo yóbbu télévision ñaakaar ñu laay yóbbu gars yi di ci mer ak yooyu loolu démb la loolu li Amérique naan from day one waaw lii man fooyu ma ko lii man mun sama téléphone yii ma yor sama bokkoo sama matériel lépp plus de plus de dix millions la quatre iPhone quatre euh, laa yor ak ñaari iPod loolu plus de dix millions la mënuñu ko yor nit ñi jàpp dañuy foofu ñun foofu ñu ñun dañuy liggéey the lost time is never found ñun caaxaan nañu dañuy liggéey. maa ko wax. mais sénégalais nag ñoom pour ñoom boo téye téléphone ci nit rek da ngay foofu da ngay wax lu baax ñu waxul waxuluñ lu baax ñu dañuy diviser dañuy fekk loo xam ne nit mënu ko wane ñu wane ko en temps réel mag ñun suñu différence ak journaliste journaliste dañuy filmer dem monté ñu monté wuñu si mhm. amul montage amul dara amul montage amul dara da ngay dugal léegi mu génn wóor àdduna. léegi ci ay ay yoo xam ne koy am à chaque fois moom mooy. lañ ci euh, quoi gi ciy am. xam nga ki nga xamante ne euh, euh, moom mooy influencé sax dina jël wala kii hmm? par exemple benn e-, exemple benn Cheikh Senghor bi nga xamante ne bijou jantal pata yaa ngi neex yaa ngi bër yaa ngi rafet kooku Malick Naar la moom moo lay ziar loolu Malick Naar euh, tontar la waaw mu ngi lay ziar ñu ngi en direct Malick Naar di wax li li ko saf nii ok waaw Malick Naar xam nga sa xarit la sa xarit la sa doomu ndey la baax a baax a baax mais métier bi nga xamante ne moom mooy métier bi ngeen def ñu gestu gis ba ah. bi nga xamante ne balaa muy dugal benn élément wala balaa muy publier élément dina ko monter defar ko ba mu normal euh, ba nga xamante ne du am benn couac ute na ak ñaaxarañdoo bi nga xamante ne dafay snap direct mu dem lu nekk mën naa génn ci snap bi alaya te ku ne xam ne ne direct boo gis dafa <coughs> xam nga bisu institution bi gën a rëy ci àdduna yaakaar naa c'est la présidence te présidence amul ànd ak n'importe qui mhm. te état boo jaxasoo ñoom rek waxuma laa ñoom mais say après sax say dugal say génn say dalal say lépp dañ koy lijjanti xool yaay kan laa ngaa jaxasoo ñoom. Mm. tey par exemple tey président de la République bu jógee këram départ ñu ànd ci cortège bi bu ñu ne cëpp bi taxaw xam ñu ñun bi la presse ñooy jiitu bu bu presse bi ne cëpp taxaw euh, le le kii nu ñu protocole bi noonu par protocole bi buntu pré buntu buntu oto bi buntu oto bi li koy tijji mooy le chef garde rapproché moo ko ci buntu bi balaa maa jël président damay bàyyi ba président teg ñaari tànkam si ba ba nga ay costume boo toog oto da ngay da ngay da yi ndax loolu yëpp ay faay la te boo ko jëlee bu bu dugal ko mënutoo koo dagg te nit ñi Sénégal bu juumee day mel ni mosoo def lu baax mhm. yooyu da nga koy kooku ci en kooku ci en réel lañ ak temps réel lañ ne yëpp da nga koy bàyyi xel di ko mais Cheikh Senghor moom dina am temps de monter mais man lii sama différence ak journaliste ñun boo bu ñëwoon di monter ji day euh, day am day am loo xam ne dañuy dañuy rëcc ñun boo ñu am plus de vues que la presse que la presse la la presse écrite ak les sites internet mooy ñun duñu monter dañuy dugal en temps réel ñuy filmer di monter ji boo xoolee campagne présidentielle 2012 en en saint ba ñu suñu di way Macky ba Macky di fekk woon lu commune mbiri bi maa ko jëkk dugal loolu moo gën a taaj sama sanat bi ndax le temps que la presse présidentielle di monter ak dugal naa ko ba gars dagg nañ ko qu'on travaille. Mm-hmm. mais dama dama bañ minimiser suñu métier bi naan ñu les snipers les nagam ak ci leneen sax au niveau de au niveau de leen di liggéey sax dañu naan borom téléphone yi may nañ ñu te téléphone yi ngay xas yow si dem tamit bi xas téléphone bi téléphone bi li mu am yow un quart mënoo ko am. Mm-hmm. nii ma nii may wax yor maa ngi jógee léegi thirty four laa jógee euh, am nine avenue ca PNS fi nga xam ne foofu nga xam ne yëngu yi nga xam ne matériel télé matériel télévision audiovisuel ak photo bi gën a ci àdduna lañ koy jaayee muy falaa jóge léegi pour jënd pour renforcer sama métier boo xam ne lii ma yor ni fooyee ma ko man sax su ma ne la ñetti place laa waree àdduna ay forom faramarin musique ci laa jeexale sama passeport ci laa teral samay waajur ci ci laa nag wàllu ci laa defee lu ne ci àdduna affaire bi gëm-gëm la rek te bisu affaire bi métier bi pour ñu gëm la yow yaa war a njëkk a gëm sa bopp mhm. ndax tey jii boo ci ñàkkoon fay rek ci ay anniversaire ngay dem ci ay Euh, par exemple benn Cheikh Senghor bii du def ay ngénte du def ay tour du dem ci yooyu mais benn ñaaxarañ doo comme ni mu mënee def institutionnel noonu la mënee dem ci ngénte wala mariage ak dëj sax ci laa lay boole ci nga bokk dëj. bisu bisu ma jox la exemple rek man ni may yëgee ci business class noonu laay mën a yëgee ci càq-càq yeeg ci ci càq-càq yeeg jakartaa yi. waaw bi ma la njëkkee wax ñaa jëndal oto da nga ne ma déedéet bàyyi sénégalais bu ma jëndee oto du ma koo laal man jakarta la moo tax ba ma demee di jaale ji Viviane Mbour wàcc sama wàcc sama euh, is ñu naan man noo toog mu dox jeex na ñaa kalaandoo la wàcc man leen yéen xamoo leen ñaa ndax ñaa la li muy jël kalaandoo bari jakarta lay gën a jël ka càk-càk mhm. man aw aw ma problème boobu ni ma mën a lekk lekkee des jus noonu laa mën a suba naanee kinkili baa wala naan ko wala naan ko café Touba wala dem ci mbaax bi dem dem ndékki bi aw ma boobu noir et ak en couleur lépp laa man dans la société bien faire les choses na lépp correct nañ ko teg ci gàmm rek tey xew yi lu muy rëy rëy rëy rëy xew bu ma nit yëgalul wala nga engagé ma du ma dem ci xew ba bari xartaan dafa may dem ci benn gindi dañ lay engagé man dañ may woo bisu man bisu yàgg nga ma woo yow may couvrir ay événement nga may jox kase di di di waxtaan ak promoteur bi nekk ñaar dañ koy fay nangam pour mu ñëw yow xam nga am ngay événement ba tàyyi woo ma ne ma lii laa bëgg defal ma événement ma ñëw defal la loolu bari mhm. xaptaan taxul may dem ci benn ngénte bu ma di jégalul mhm. lii bagage yi di bëri ba li xew yu bëri bëri bëri samay voyage damay voyage tranquillement laa sama business toog teene bu ma wàccee Europe fu ma mën dem àdduna bu ko ma dëgg la ko waxoon. waaw loolu nag mënoo mënoo dund tey na fi boobu nag boo bëgg ci boole nag ñàkk fay la nag. Euh, américain bi nee na zone lost time is never found again le temps perdu ne se rattrape jamais. lii benn son time la rek dañ koy liggéey te ko ci gaam bu jeexee jeex na ñu dem ci leneen ndax man lii xam sama passion la métti sama métier moi j'ai fait la menuiserie du bois à la CNQP centre national de qualification professionnelle loolu laa jàng ko métier. trois ans de formation am sama CAP BEP CQP en menuiserie bois def samay stage yu mel ni hôpital principal les meubles di Kayor ak Grand Moulin de Dakar ak boiserie Khadim Rassoul loolu mooy sama métier man bois laa jàng mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogal benn lal de <laughs> euh, ñu koy ah. gërëm bu baax a baax a baax moom ñaaw xarañ lo Euh, waa di di gërëm nag di gërëm nag sama xarit yi ma fekk si nag États-Unis ku ci mel ni waa Columbus Ohio ñoom Alwalid Seydi Niki Baraji Baraji New York nag bu su ma nee New York ne boos ñaay the building borom 24/7 naa Frederick Douglass ku ci mel ni Amina euh, ku ci mel ni euh, Amina Poté Seydi Malick Malick Fall naar bi di remercier suma xarit yëpp ñi waa bu mu lumee damay juum ci télé lañ ne maa ngi gërëm ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm ci barke Seydina suma papa nag El Hadj Ndiaye lu ma am ci audiovisuel rek gannaaw yàlla moom la ba ma yor bajam di ko doxantoo boobu xewagul woon ci laa xamee seede ci laa xamee deseene karaajo moom ci si bi te lu ma am ci jërëjëf euh, ma nga noonu ñaaxarañ ñëw la ñu amoon euh, fii ci euh, plateau bi ñu dugal ko ci ligne bi parce que mënut a ñàkk ndax li nga xamante ne moom mooy métier bi am na lu ci def ah am na lu ci apporté ah, am na ci particularité boo xamante ne am na ko ci mënul woon ñàkk ñu jël li nga xamante ne moom mooy xalaatam ak yu ni mel. Mouhamed dama lay jox bi taf. ok euh, ci Cheikh laay ñaan Cheikh dañu gis tout le temps ñu ñëw ci le mot influenceur parce que am na ku ñuy wax euh, Momar Business créé benn plateforme tuddee ko seen influenceur regroupé presque la majeure partie de ñi ñuy woowee des influenceurs alors ñi nga xam dañu leen gis ci TikTok bi. Momar Business Momar Business waaw xaritu Kheucha waaw Momar Business waaw. ñu koy nuyu de passage ñu koy nuyu moom moo créé plateforme bi ñuy wax seen influenceur boo xam ne ay ay ñi ñi gars lañ moo leen di def influenceur alors euh, dañuy ñëw ci le TikTok en personne. bi pas en personne teg sa plateforme boo xam ne moom la ga moom la gars yi di gën a utiliser amaana ñi fi woowee influenceurs yëpp c'est parce que ils ont maximum d'abonnés foofu est-ce que foofu bokk na ci réseau social bi nga xam ne yow da koy utiliser mën nga koo ab rek jàppee sa bopp influenceur wala créateur de contenu waaw mooy li bi ju doon wax léegi